dañu wax ne waaw Macky Sall ñu ko woon a bàyyi mu dem naam moo doon président dañ ko war a bàyyi librement mu dem mais bàyyam ko bari na ci ñoo xam ne ay sénégalais yoo xam ne nii wax dëgg yàlla dañ wax ni Macky kenn waru ko a bàyyi mu mu dem daa waroon a leeral ba pare door a dem ay scandale ab président nag ñu jox lam réew nga ne yow da ngaa bëgg réew ba bindoon ci ab livre daanaka mën naa ne ñi nga xam ne nii dañuy topp ay livre livre boobu bu ñu gisee li nga def ci biir lépp point par point dañu xam ne yow mii sa waay loolu ay wax la woon nii rek ak bëggoon a jaay sab livre waaye Sénégal ku nekk ci sa kër yaakaar naa ne doo génn Sénégal ba naan da ngay dem ci beneen réew naan dañ fay dëkk ñu baree bari nag dañoo jàpp ni maanaam ñoom dañuy nax sénégalais yi fekk ñoom seen bopp la ñuy nax voilà ndax munoo bëgg sam réew ba pare ba bind ci livre ba pare nga wan ginnaaw réew ma di woote ay téléphone ak di tweet ak kenn xam waaye sa tweet yeeg sa woote yooyu noonu da nga ko wéetoo ndax fi mu nekkutoo président Sénégal ab citoyen ordinaire nga comme ñun niñ ko doonee kenn falatu la président fii ci Sénégal yaakaar naa ne fi mu ne citoyen simple nga boo ñëwoon Sénégal di dox ci mbedd yi kenn du la faale xanaa loolu ñi nga xam ne rek voilà image la ñuy topp ak président la woon ak président la woon voilà kon bari na ñoo xam daal dañ doon wax naan voilà Macky Sall moom waru woon a dem wala waruñu ko woon a bàyyi voilà dañ ko war na téye fii voilà euh, en tout cas lu ci mën a am rek mooy Euh, comme moom ñi ngi doxal te lépp moom étape par étape la voilà leen lu ci nekk rek voilà euh, yaakaar naa ni dinañ ci ñëw saa suñ ci yegsee sénégal sénégalais yi danañ xam ni agsi nañ ci ndax ñii moom nekk nañ ñoo xam ne ni yàkkamtiwul parce que yaakaar naa ni am na ñu nekk tey jii Sénégal xamatuñ nu ñuy def wala xamatuñ lu ñu war a wax ndax ñoom seen i pexe bu juboon yaakaar naa Ousmane Sonko ak Diomaye dañu kand ci biti sax banaan dañuy doon président bay dem palais waaw ndax jeg si nga jàpp gi leen jàppoon tëjoon leen am na ñoo xam ne nii bëgguñu woon ñi bàyyi leen pour ñu génn bari ñëw nag naan dañuy toog tey doon doon président wala di doxal wala kon yaakaar naa ne suñu borom rek moom mooy ki nga xam ne nii mooy tànn ginnaaw ba mu leen tànnee rek Sénégalais yi nekk seen ginnaaw gis nañ tamit ñu ngi teg ay jéego pour defar réew mi ndax réew mi dañ ko yàq cinquante ans voilà depuis 1960 ba léegi yaakaar naa ne daara doxul ci Sénégal li ñuy wan ak li ñuy indi yëpp. daanaka mbir mi du loolo mbir mi daal mooy maanaam li ngay wane ak li ngay enquête ak li ngay def euh, nit ñi di ko gis saa su nekk.